ngi xaar Elimane Diorène bu Sénégal di Ousmane Sonko war a def déclaration de politique générale am loolee nag daanaka indi féewaloo ca ndaw yu féetewoo foofee ca pencum ndaw réew ma groupe parlementaire yi askan wi ngaañ nag daanaka ab woo nga xam ne lool leen seen ab sart nag tënkoon ci jamono ji nga xam ne ñi nga xam ne daanaka ñoo fare rek ak nag nguur gi nen daal dañoo rek jalgati lenn ca kayit ya Cheikh Oumar si moom mais nag daal dinay taxaw ci njariñ li nga xam ne rek daanaka ak solo suuk fan la ñu war a daal di jëmmal ngir mu ñëw nag addu ci li nga xam ne rek noonu la fas yéene wooyee liggéey wu ñu ko daal di euh, dénk. addu jëmale ci rek euh, kuréel guy féetewoo l'hôpital yi bi nag mooy fukk ak ñaareel bi yoon ñuy gisee daanaka waxtaan nañ anam yi nga xam ne euh, loolu lañu am ci tolof tolof ak itam liggéey wax nañu ko war a euh, bërële ne daal am na yu bari yoo xam ne daanaka daanañ nañ ko cay lajj te taxaw tem mu fas yéene caa indi ay saafara bokk na ci daal ñi nga xam ne ñu nekk docteur ak anam gi leen war a tàggatee ba ñu xarañ lool seen wàllum liggéey bokkoon na ca waxtaan wa addu ba tey itam euh, jëmale ci ñi nga xam ne euh, ñooy centre de prise en charge de addictions au Sénégal euh, ñoom itam ñu ngi ko sampoon depuis 2014 waaye nag foofee ay jafe-jafe yu mag a mag la ñu daal di am ba tax nag lu toll ci ñetti junni nag ci ay wuy tawat daanaka dañ leen di faj ci anam yu métti métti loole nag gën ko taral bokk na ci rek xeetu jumtukaay yu sene bari yi nga xam ne ni daanaka faral lañ ko gis ci jamono yi lee mbokki lee gën a fës boo leen taaxi loo ñu faram fàcc dal leen nag jàmm mbokk yi ni leen ko Suzanne Deme junjee léegi noonu lañ koy euh, dooree wax ci jëwriñ bu njëkk gi di Ousmane Sonko moom mi nga xamante ni boobaak léegi ñu ngi koy xaar ca pencum ndaw réew ma ngir mu def euh, li nga xamante ni mooy déclaration de politique générale mel ni nag ñi mu farandool waaye yeewi nee nañ daal euh, ci li nga xamante ni moo tunk ci assemblée nationale ci wàllum yoon amul benn date boo xamante ne joxe nañ ko wala sax benn àpp ñi nga xamante ñoo bokk ci mouvance présidentielle nee nañ nag dafa mel ni li nga xamante ne moom la yoon tëral foofe dañ ko salfaañe sukkandikoo ba tey ci kàddu ko Cheikh Oumar Sy daanaka assemblée nationale nak mënuñ ko woo ci lu yàggul dara ngir teew teewlu rek kàddu yu nga xam ne facile ne bawoo ci liman jorun bu Sénégal waaye daal nee na jox cër li nga xam ne rek moo di fan yi ñu may ngir mu amal loolee nekk na daal lu ñu war a jox cër bokk na ci jox ñun fukki fan yoo xam ne bañ ko tabbeek nigéen ñi daal waroon na ñëw waaye laata loolu la ca toflu itam bokk na ci wotu budget yi nee na nag loolee xel xalaatul nag ñuy rek tas assemblée nationale bi ndax loolee dina woroo tënk ba tey ci ay xibaar ñu wax ci wàllum wérgu yaram naka la ñuy def ba gënoo ñoŋal paj ñi ci l'hôpital yi lañ doon waxtaanee ci fukk ak ñaareelu ndaje ñu duppee ko rencontre hospitalière kuréel bi ëmb l'hôpital nekk ci Afrique Océan Indien ak Caraïbes ñoo ko woote. professeur euh, Mamadou Sarr moom itam jiite comité scientifique bi fas na daal ñu fas yéene wooye liggéey bi waaye itam lépp loo xam ne ñu koy xaar ci ay coppite ñu mën koo ci ay waxtu yi nga xam ne nii réew yu ne ci dundub Afrique bëgg nañoo yombal paj mi ñu bëree jàpp ni ngir loolee mën a antu faaw rek paj mi mucc ayib. yokk seen euh, seen crédibilité maanaam nit ñi nit ñi nit ñi gën leen wóolu xam nga hôpitaux yi dañuy fonctionner mais dañu leen war a gën a wóolu. wóolu bi mooy ñi nga xam ne usagers yi lañ mooy ñi feebar ñi ñu gën leen wóolu euh, état bi gën leen wóolu partenaires yi gën leen gën leen wóolu. réewum Sénégal nekk ci tànku tëral ab feuille bi nga xam ne ni day tax ba këru fajukaay yëpp mën a certifié wu. pour qu'on puisse décliner une institutionnalisation. du dara lu dul fësal doxalin bu soxal wàllum qualité fii ci Sénégal. itam daal di becc li nga xamante ni mënees nañ ci sukkandiku ba barabu fajukaay yëpp tënku ci tëralin yu bees yi. partagé et accepté par l'ensemble des des parties prenantes. bileb certification nag day tax ba ñu gën a ñoŋal nu ñuy toppatoo toppatoowee waay wopp yi. ku ne qualité ne kaaraange itam. ak lépp li nga xamante ni nag loolu lay laajte maanaam dalal gi orientation bi ak toppatoo yenn équipement yi ba ci sax jumtukaay yi loole mébét bi moo di away jëfandikoo bi nekk ci ndorteel gi ba ci njeexital gi. gannaaw bi nga xam ne ni kuréel bu ëmb mbooleemu hôpitaux africain yi bu océan Indien ak i Caraïbes amalee ab taxaw seetlu ci nu këru docteur yi di liggéeyee mu taxaw temb ngir seen certification ndax jàpp na ni ngir paj mi gën a mën a yomb si ñëpp faw rek ñu jiital nit ki te loole day aaju ci ñu dogoo ci qualité ba ca war. de Kanté ni ñuy teeroo askan wi ànd ak seen i wopp ci l'hôpital yi loolet des na ko xoolaat teg ci ñoom ñi nga xamante ne dañoo feebar dañ leen faral di bàyyeeg seen bopp duñ leen teel a toppatoo mel ni war nañ ci andi joyante muy lu ñaaw buñ sukkandikoo ci way taw ci jàpp nañu daal doxalin googu rafetul te tax nag jot nañu daal di soppi doxalin ne la koy firndal bokk na ci daal ñàkk tàggat gu doy bu ko defee rek ñu mën a sàmmonte ak seen liggéey mu bari ñuy jànkonteel ay jafe-jafe saa suñu feebaree ba ñëw ci hôpitaux yi li ko waral bokk na ci anam bi nga xamante ni noonu lañ leen di dalaleel ci yooyu le hôpitaux ñàkk kersa gu metti la leen yenn médecins yi di woon li ni mel nag bokk ci li nga xamante ni nii dafay daal di yokk jàngoro. am na ñoo xam ne moom vraiment seen place newul ci hôpital yi. parce que hôpital il nga am xolu yërmande boo amul xolu yërmande waroo fa mën a nekk donc te loolu aussi am na am na ñoo xam ne moom vraiment noonu. fekkee sénégalais la simila sénégalais yi ni ndaw yi nekk ci hôpital yi boo ñëwee dèjà dañ lay ñàkkal kersa duñ la faara boo xew ñu gëdd la yuuxu la mais bu nekkee ay naar yeeg ñeeg yi moom vraiment dañoo accueillant dèjà xam ne ñu ñu waxee ak patient yi sénégalais yi ñoo arrogant ñëw ànd ak feebar gu metti doo gis ku wax ak yow ku la orienté wala sax jox la ay conseil xamal la fi nga war a jëm ak li nga war a def loole nag bokk ci li nga xamante ne nii lu metti yi les la teg si bëri na luñ koy faral di gis ci fii nga xamante ne nii moom mooy salle d'accouchement yi. xaw ma ndax dañoo bëgg seen liggéey xaw ma daal catégorie sax tane nañ góor yi moom vraiment mais jigéen ñi jigéen ñi ñoo nekk ci hôpital di ñàkkal kees nit ñi xoolal accouche salle d'accouchement yi ni ñu def dañu leen jël di leen torturer di leen yuuxu di leen saaga des fois am ñu si dóor ay nit. par rapport ak question yooyu ngay posé léeg-léeg nga xaw si am réponse yu xaw a ñàkk kersa wala sax ñi lay daan gisuma ko je ne sais dugal fële demal fële. wante ca wet ga mu bari tamit ñi nga xamante ni nii ñoo ngi ormal seen liggéey di ko def ci anam bi jaar yoon. am nga santé boo boo fa nekkee rek am na benn waat boo waat waat boobu moom moo war a tax malaat bi da ko war a jàppale accompagnement bi da ko war a orienté et cetera et cetera. fëgg naa bureau ñu dalal ma dalal sama xel mu toog ñu waxtaan teg ma ba avant ma fay jóge sax li bari wàcc si man. ñi jot a tasel tey seen bëgg-bëgg. jamono ji mooy fexe rek ba njiit yi mën a wéyal contrôle bi ci hôpitaux yi ba rek ñu mën a xam bu baax a baax anam bi nga xamante ne ni noonu la ñenn ñi liggéeyee. des ba tey ci wàllum wér-gu-yaram wax euh, ci euh, benn centre bi nga xamante ne moo nekk fit ci Sénégal ñu ci euh, faj lu jëm ci ay addiction ñoo xamante ni kon war nañ leen a delloo si seen xel ci atum 2014 lañ ko taxawaloon. mel ni nag jamono ji mi ngi ci eh, état bu doy waar waa CEPIAD nag di ay médecins ñoom ñi ngi liggéey jamono ji ci anam yoo xamante ne daal foog ñu xoolaat ko ndax fañ nekkoon nañ leen faa jële yóbbu leen feneen. foofee nag màggat loolu la def ba tax seen liggéey mënuñu ko amal ci anam yu jaar yoon lu toll ci ñetti junni ci ay woy tabaat daanaka la ñuy faj ca barab boobee ne nañu tax li ko tax nag ba mbir wa gën a tar bokk na ci xeetu sabar xeetu sinébar yi nga xam ne daanaka ndaw yi table nañu ko jëfandikoo. ces produits mais surtout de pouvoir les identifier surtout de pouvoir les. L'un des défis majeurs auxquels le centre de prise en charge des addictions de Dakar est confronté est celui d'identifier les composants des nouvelles drogues arrivées récemment dans le marché sénégalais. Et ça, ça... ñuy euh, jéggalu bu baax ci boobu les euh, éléments ñu tegal leen ci nasaraan dañ ci daal di euh, dikkaat ak yéen rek delloo foofee jëmu bay nga xamante ni moo ñuy nettali médecin yi nekk ci CEPIAD ñoom ñooñu nga xamante ni kon dañoo am ay jafe-jafe ci liggéey bi ndax bërëb bi ñu leen yóbbu jamono ji doy na waar. màgget la def waaye nag terewul la ñu war a faj ci ay doomi aadama toll ci ñetti junni ñu ne ñu daal li ko gën a taral nag bokk na ci xeetu Sénégal yu yees nga xam ne ndaw yi ñu ngi koy jëfandikoo. dellu siwaat ci suñu yeneen yoo jotaayu xibaar dem ca daara ju kawe ja wax ci ndaje miñ fa doon amal di journée bu ñu jagleel wàllum science centre international bu yëngu ci wàllum génomique ak surveillance sanitaire ñoom ñoo ci lëkkaloo ak département bu santé bu université bu Havard. balal ko waxtaan nag bu am solo woo xam ne am na coppite yoo xam ne bëgg nañ ko ci daal di indi nañu daal gis nañ sax ne nag xalaat wa ma ngay jëm kanam. génomique. jumtuwaay bu am solo la ci ni ñuy saytoo lépp lu jëm ci wàllum wérgu yaram jumtuwaay boobee nag ñii di waa SIGAS def ci ay jéego yu am solo ci biir Sénégal ci li jëm ci wàllum prévention anticipation ak itam faj bi ñuy faj yenn pathologie yi. Genomic surveillance um, allows us to understand what infections are here in Senegal. bi la surveillance daf ñuy may ñu xam yan infection moo am fii naka la ñuy doxee. bu ko defee ñu mën a xam yan menace moo ci am mën a amal ay diagnostic ak ay traitement waaye tamit fexe xool ndax mbir yaa ngi dox wala déet Sénégal rawatina UCAD ak SIGAS ñoom nag ay leader lañu ci bile domaine rawatina lu ñeel maladie infectieuse yi lu ci mel ni malaria ak yeneen i infection and in particular for malaria and other infections naka noonu kii di professeur Daouda Ndiaye di xamle ne Sénégal dem na sax ba moom boppam ci wàllum xam-xam ci lu ni mel ñu ngi sant yàlla ndax mbépp médicament bi ñu utilité Sénégal pour faj sibbiru médicament bu baax la parce que génomique moo ñu ko wax te moom du juum ci wàllu saytu bi également ni koy saytoo également génomique bi moo ñu ko wax ba tax tey Sénégal amuñu benn complexe te lépp lu ñu wax ne loolu la ñuy doxee rek noonu la ñu koy doxalee. xam-xam boobee nag ak leadership bi di yokku. bés bu jot te itam ñu orienté ko ci ëllëg bi nga xam ne dañ ci gën a may ñu ngi liggéey pour que chaque at du weesoo sibiru ñu wax ban jàngoor moo fi ne ban garab moo ko mën a faj ëllëg ak lan mooy risque bi par rapport à la population. ñii di waa centre international de formation ci wàllum génomique appliquée ak saytu bi ci wàllum wérgu yaram gi nag dinañu wéy di wattandiku ngir gën a ñoŋal wérgu yaram bi ci biir Sénégal ak ci biir ay réew yu bëri ci diwaan bi lu ci mel ni Guinée Niger wala sax Cameroun. ñu dem euh, ci centre bu foofu yi nga xamante ne junj naa leen ko léegi ay bërëb yu yàgg la ñi nga xamante ne ñoo fay liggéey médecin yi euh, di woote wàllu. booy tawat ci toll ci ñetti junni ñoom nag jàpp leen daal liggéey woo xaw na tar ndax daal anam yi koy defee jéggi na dayoo waaye nag dafa nekk jamono joo xam ne xeetu Sénégal yu yees dafa daal di juddu indi loraange ci askan wi. tey jii jafe-jafe yi gën a mag médecin yu centre de prise en charge yu intégré des addictions de Dakar di CEPIAD di jànkonteel mooy rekk xam xeetu drogue yu bees yi nga xam ne dañoo tuuru ci Sénégal. parce que balaa ngay xeex dara il faut nga xam lan la. am na ñuy wax couche fii actuellement am na ñuy wax sunus am na ñuy wax euh, volet am na ñuy wax kii mais pour ñu jéem nga identifier loolu mooy problème bi. ñàkk xam xeetu drogue yooyee bokk na ci lii di jafel pajum yenn way tawati. CEPIAT weer bu jot dina dalal lu tolloog juróom fukki doomu aadama yuy jëfandikoo drogue. te boo xoolee bi ñu commencé léegi ñu ngi toll ci dépassé nañu ñetti junni patients yi nga xam ni gis nañ leen ci centre bi. am na ñoo nga xam ne gisatuñ leen ñëwatuñu hmm? parce que tout simplement wér nañu. paj mi léegi si yi les bureau conteneur lañ koy defee. ab diir a ngi nii médecin yi wan gannaaw seen bâtiment bi ñu leen tabaxaloon ndax bërëb bi dafa dem ba wóoratul. donc war nañu tabaxaat beneen CPAT bu nga xam ne ay lal pour ñu mën ci hospitaliser ñu ko soxla. moonte di Afrique sow jant benn centre de prise en charge intégré des addictions bi dong la am. sàmba Meng lu tollook juróom-ñeenti at ngi nii muy faju fii ci CPAD bëgg bàyyi drogue drogue nga xam ne dafa yàq àddinaam. sama ko yàq avenir. yàq sa relation ak say famille yàq sa liggéey erreur bi boo ko jëlee boo ko bëggee baax dangay ñëw fii. drogue bu bari bi ñu jàpp fii si réewu Sénégal it jafeel na paj mi fii si CEPIAD. boo seetloo jamono yi ñu toll li ñu jàpp ci ay tonnes drogue ci Sénégal loolu moo lay wanal moo lay wan ne euh, drogue bi euh, bari na fi Sénégal nag pays de transit la am na ci drogue bi loo xam ne day jaar jàll. waaye lu ci bari tamit dafay des pour ñi nga xam ne ñoom ñoo koy jëfandikoo fi ñii di liggéey CEPIAT yëf yaa ngi leen di tàmbali di ëpp doole bu weesoo sax jafe-jafe yi ñu am ci seen wàllu bâtiment amuñu it personnel bu doy li santé bi di rëy rëy ñetti médecin kott la am wàllu garab yi it balaa ñu see jot lu nekk la ñuy daj Demba Mbaye ñu wax ci département d'état américain bi nga xamante ni daal dina génne ab rapport ci atum 2024 loolee ñeel ay nit nga xamante ni dañ leen jël di leen liggéeyloo di leen teg lu métti foofee ca Kédougou xoqatal yoo xam ne daanaka ñu ngi ko faral di jëkk bokk na ci jigéen ñi ak ndaw yi seen naka at toll ci fukki at ak ñaar ñi koy def daanaka ñu ci bëri bawoo ci réew yoo xam ne daanaka euh, sorewul euh, Sénégal waaye jàpp ni daal yenn ci coppa day dem ba egg ci ñaari millions. rapport bi di fësal ab situation bi nga xamante nag dafa jéggi dayo fii ci Sénégal travail forcé njaayum nit exploitation sexuelle loole lépp ñu ko ci daal di gis ñeent ca joxoñ baaraamu tuuma nag di ay réseau yu bàyyeekoo ca ay chinois. itam ay jàngalekat bu ñu sukkandikoo ci boobule rapport nag boobule exploitation fi ñu koy gën a gis moo di Kédougou foofe nag ay jigéen wala sax ay xale yu ndaw ñeeñ fay trafiqué nag lu ci ëpp jóge ci dëkk yi nga xamante ne ñoom ñoo ñu wër nañ koy defee moo di servitude par dette maanaam tey say këyit ba nga fay leen koppar gi nga leen yoreel koppar googee nag dina dem ba daal ëpp ñaari million bu ñu sukkandikoo ci rapport bi ba tey nag mu mel ni nag dañ ci daal di jox famille yooyu les victimes li waral ñu koy gën a nemmeeku ca Kédougou moo di yenn gëm-gëm yi ndaxte jàpp nañ ñi loole dina tax nga gën a am wërsëg booy wër lii di or ñeneen ñi nga xamante ne nag dañu leen di nax di leen sàkku wala di leen jaay moo di gone yi nga xamante ne njàng bu baax la ñu bëgg mu mel ni ay jàngalekat yu nekk ci secondaire yi dañu exploiter sexuellement ay ndaw yu jigéen ñu daal di leen jox koppar wala sax ñu daal di leen jox ay nat yu baax ay touriste itam dañ fi daal di exploiter ay gone rawatina dina liggéeyloo seen i kër ñu koy gis nag ci Dakar Saint-Louis Cap Skirring ak ci Petite Côte bi boobu leen rapport di fësal ba tey nag ay bateau yi nga xamante ne nag Chine la ñu daal di bàyyeekoo di liggéey fii ci Sénégal dañ fi juróom fukk ak benn trafiquant jàppoon nañ leen ba daal di ci tëj fanweer dafa ndaw bu ñu sukkandiku ci observateur yu département américain bi jàpp nañ ñi ñàkkum tàggat itam dañ ko daal di nemmeeku ci magistrat instructeurs yi ñu ñaan rek ba ñu daal di gën a diisal seeni yoxo leneen liñ ci sof moo di guerre ak lii di complicité loolee waral nag ay takk der duñu mën a amal seen liggéey na mu ware nekk si ci chronique ba si Mamadou Sy Albert li mu gis mooy njiitu réew mi Bassirou Diomaye fay ginnaaw bi ñu ko tabb rek léegi mi ngi tàmbali liggéey nee na daal fu kawe lay xool mu ngi teg ay jéego ngir rek matal li nga xamante ne woote nañ ko muy jub jubal jubanti donte nag liggéey bu tar mu ngi koy xaar ci bopp réew mi ak lu bari loo xam ne war na ci indi ay joyanti terewul nag mu ngi dëggal boppam bu baax ci bopp nguur gi ànd ci ak Momar Cissé ci ñaari fan ci yorum avril ki nga xam mooy juróomeelu njiitu réew mi di Bassirou Diomaye Faye moom dañ koo tab ci premier tour bi ndax la mu am ci suffrage bari na maanaam téeméer boo jël moo ëppal juróom fukki teg ñeent ba tax na kat moom moo fi wutu njiitu réew mi ba woon di Macky Sall ñetti weer ginnaaw ban ko daal di tegee gis te ne am na doxalinu boppam stylam personnalité am waaye loo xam ne kat moom la teg yi gët maanaam li nga xam mooy sur priorité Jomaay moom ndànk-ndànk moom ma ngay daal di teg mel ni akub jargoñ bu nga xam ne day le tub lënd ba tax na personnalité état bi naam sax lu am doole la moom nag mi ngi doxal waaye tamit di déglu lëkkaloo bi dox ci diggante personnalité bi nga xam ne moo am ci njiiti réew ak li nga xam ne mooy xelam ak gëm-gëmam loole sax foo ko takk weesu na ko waaye gouvernance bu Jomaay bii mi ngi teg ndànk-ndànk style bu nga xam ne bu woyof la démarche bu nga xam ne kat ku wóolu boppam la ku ubbeeku koo xam ne mu ngay déglu ñëpp déglu askan waaye ñi nga xam ne tamit ñoo ñu wër dem na sax seeti leen gis nañ ne dina jël temps bu yaatu ngir mën a déglu laataa mu jël ay dogal waaye tam ci noonee ki nga xam mooy Bassirou Diomaye fay jot na dajaloo ay acteurs politiques ci nga xam ne kat moo ci Sénégal ca bitim réew waxtaan ak ñoom ay visite yoo xam ne visite de travail la daal di diisoo njiitu réew mi nga xam ne kat moo fi nekk ci donkaasi gii moom gis na ne kat nga xam ne mu lañ ko dénk mi ngi koy daal di rangoo ci jub jubal ak jubanti dana sonn lool waaye loolee xam na ko ndax xam na kat li koy xaar yaatu na jafe-jafe ci wàllum suuf li nga xam mooy njëg li ci daara yi ñuy dundee ak li nga xam ne mooy moomeelu askan wi ak la nga xam ne moom la ñuy bay sunum réew ak tamit xeex wàllum ger loolee lu yaatu la loo xam ne kat moo koy xaar juróomeelu njiit ci réew mi moom ci boppam nar na bett ñu baree bari ñoo xam ne kat ay personnalité ñoo xam ne yaakaaru noonu kat kii liñ ko dénk mën na koo yor des ba tey ci wàllum politique wax ci ki fi nekkoon joriñ ko njëkk di Amadou Ba moom nag ñu lajjee ci ñoom dañuy turé ba léegi kin dégg ko mu wax ci wàllum politique pataaral googu ëllëm lu bëri am sax ñu dem ba yaakaar na day mbébét génn ci coalition Benno Bokk Yaakaar ak APR. sukkandikoo ci yenn say xabaaru boobu ci nga ko jegee ba moom mais ma ngay liggéey ci suuf ngir teg nag ak kuréelu politique ak boppam waaye nag ñu bëri jàpp ne daal loolee ba muyul mën na indi ay moom ndax na mu jege woon ci réew mi Macky bi ñu génnee ci présidentielle 2024 boobu ba léegi Amadou Ba nag moom kenn gisagu ko mu wax lu ko waral nag moom mooy ay coow yu ci amoon ci diggante moom ak président Macky Sall bi ñu génnee ci campagne électorale bi ak présidentielle yu 2024 benn laaj rek ñu teg ko ci ki fi nekkoon premier ministre nekkoon fi tamit candidat ndax dafay génn ci APR créer parti politique am tontu bi moom mooy lettre bi ñuy gis Amadou Ba lii la ci doon wax. opposition boo xamante ni démocratie moo république tamit ñu respecte ko ñu duppee ko nouvelle responsabilité ay nouvelles responsabilités yoo xamante ni mën na soppi lu bëri tabaxaat tamit lu bëre ñi koy def mu ci ànd ak ñenn ñu nekkoon ci biir coalition Benno Bokk Yaakaar waxtaan yi mu ngi am ndaje yi tamit mu ngi am loolu yëpp ci ut ñoo xamante ni ñoo ñu la fas yéene liggéeyal am ku ci wax ne ñëpp gis nañ ni moom lu ñu ko traité balaa ñu ko doon tabb ak ci biir campagne électorale bi ñun moom la ñu àndal te moom la ñuy jàppale bu ñu noppee ci liggéey bu ñuy def ñëpp ñu dégg muy loo xamante ni dégg gun ci Amadou Ba mu àddu ci lu weer ba weer nag moom mooy gouvernement bi ñu ngi teg seen politique Amadou Ba ndax dina jàkkaarloo ñi nga xamante ni ñoo yor bi léegi di ci joxe xalaatam wala mu leen di ŋaññi député bi nga xamante ni nag ci opposition bi la nekk àndul ak Amadou Ba mu ne lu weer ba weer moom mooy Macky Sall moom moo ko jaay te Amadou Ba amul benn moyen ngir ñëwaat ci làngu politique gi. ñu wutali Diourbel ci marché Ndoumbé Diop ak euh, fi nga xamante ne moo ko wër daal nañ koy set setal euh, ci euh, ndiggoolu préfet boobu la département bu fekkee nag ñu bëri daal nañuy ŋàññi ñi doxalin woowee jàpp ne gi daal amul ko jaar di topp am ñoo xam ne ñoom rafetlu nañ bu baax liggéey nga xam ne daanaka sumb nañ ko ca marché Luma ba. jamono ji ñuy waajal marché hebdomadaire bu Diourbel fépp fu ñu mën a jaar ci marché Ndoumbé Diop bu lépp luy tabax wala baar lii di. pelle mécanique bi def daal di yàqati lépp li nga xam ne nag mooy mbedd yi wër marché central bu Diourbel bu xatoon itam ñu toll ni nee yu bëri daal di tëj seeni bunt ci ndigalu préfet bu département bu Diourbel ab opération de désencombrement ngir yaatal voie publique yi la ñu daal di door niki ci àllarba ji le opération bi nag naqari na ñenn ci jaaykat yi. ndax li ñu fay bett nañu dul marché yi. nga xam ne ci bër ñun bër pour tal bi marché bi dañ koy toog trois mois yoo xam ne nii kenn du sa place day am am ndox bu defar wala muy dimbali loolu la war a def ñun nag ay population lañ ah amuñu doole te ñuy askan wi ñoom jaaykat yooyee ñoom itam mer bu futt lañu daal di def jëmale ko ci yi nga xam mooy préfet bu Diourbel mi amal lu ni mel mais li ñu préfet def nii àq la joo xam ne nii gën ko àttam ndax foog na ni ba ci kanam yàlla dañoo ñun dañoo tooñ dañ ne dañoo tooñ ñu tooñaat bi noonu la demee waaw te marché bi moom bi nga tali bii mënuñoo fexe ba mel ni jour national poste nit ñi dañ ci liggéey ah di daan seen doole te ñu benn marché lu ëpp ci jaaykat yi mere ba futt ci opération de désencombrement bi ñuy amal ñeneen ci jaaykat ñoom mbégte te rek la ñu tëj daal di am liggéey bi dama cee ànd suba sañoon fépp di naan lal ndox bi su dee am fu mu mais lii ñu def nii ku nekk ci biir tool yi effectivement ñëw fi day mën a jënd bu doon buñ paree bale mu neex boo buñ paree ba fi mbalit naan ko man anduma ci teyaan na ma ci suba de man ma teyaan man du baax laa woote ñëpp am jàmm man kontaan naa ci lii moom préfet bu département bu Diourbel daal di nay fësal yéeneem continuer bii lay opération waaye itam taxawal ab système ngir joyantiwaat marché Ndoumbé Diop bi ak li ko wër bu ñu jógee Diourbel dañuy dem ci commune bu Koul nekk ci département bu Tivaouane foofee nga xamante ni ab coopérative lañ fa daal di taxawal ngir gën a ñoŋal mbay mi ci seen diwaan. loolu itam bokk na ci gën a yokku seen ab taxawaay ca barab boobee nañ daal lu ñu bëgg moo di dugal loxo bu baax ci càmm gi mbay mi bu ko defee li nga xam ne ñoo nekkoon seen diggante ak état bu Sénégal mën a dañ bu ko defee lépp loo xam ne bëgg nañ ko ca mëbët ak kàddu yu ñu ca bëgg a jóge yi day dox ci seen diggante ak état bu Sénégal. dañ leen jox aw jiwu di leen jox lu nekk wante dafa am fu muy jaar bala moo ak si ñoom mbir mi nag bu dee daa am fu muy jaar bala moo ak ci baykat yi day ruus day ruus lu baree baree bare daanaka li ci ak si moom du bari léegi nag moo tax comme ñun état bi nee na lii la bëgg daal bees bi ñu ne ah kon que ñun danoo war a bokk ci commune yi ku njëkk a samp ndax na ñi sonn nañ coono yoo nga xam ni képp ku leen woo pour nga libérer leen ci intermédiaire yi moom nañ sawar ndax soo tey ku nekk nga jàmbat jiw ma jox baaxul jiw bi doyul machine baaxul c'est parce que nag état bi moom li ci ëpp état yëpp ñoo ngi wax ay subvention yu bëri ay milliards wante bu nee cent vingt milliards daal dinañ jàpp ni moom quarante milliards yi moom intermédiaires yi ñoo ko séddoo léegi nag ki nga xam ni moom lañ war a jox gisul dara day metti ci moom moo tax ñun tam ñu war a góorgóorlu ànd nekk aw say mu nga mbokk yi fi ñu yem ak yéen nañ ci jotaayu xibaar di leen jaajëfal bu baax ci seen teewlu ak seen kóolute Suzanne Deme am mbégte doon ci fegg ak yow. amoon naa mbégte bu yaatu jan ak ñi doon teewlu. xibaar yi ci kanam la ñuy dellu si bu juróom-ñetti waxtu jotee ci kàllaamay nasaraan mën ci fegg ak Tabara Diop léegi léegi Mamadou Awa Ndiaye ngeen di ak ganu 7TV Savoye leen di ñu seetaan